matricule DK 53 42 P. DK 53 42 P dañ ko soxla moom taximaan bi. Hmm. waaw. foo jëlee image yi ñoom dafa mel ne caméra surveillance. caméra surveillance moo ko génnee démb. waa jàmm def am na ay bagages yu mu jël. Mhm. ndax xam na ko wala xamu ko nag dugg na ci ab looxoor bu mu xamul. Hmm. waaw léegi nag fa mu yóbbu bagages yi nag lañ soxla. Hmm. waaw DK 53 42 P. vidéo yaa ngi nii taxi baa ngi nii. moom borom taxi baa ngi moom borom taxi bi léegi nag balaa ñu ci avance comme dafa am enquête bu ci nekk. Mhm. loolu lañ ci mën a gum génne. loolu leex na Ndiaye. Mhm. beneen express bi <laughs> Ndiaye. Mhm. démb ñi ngi waxtaanee fii benn benn soxna. bu doon jiiñ benn waaye fële ca Thiès Cité Lamy mbirum viol ba ñu naan nañ ko jéggal buñ ko jéggal. mais Ndekete njaay kooku c'est un habitué des faits. kan ko jigéen ki waaw. ah bon waaw. xale bu jigéen bi njaay mi ngi tudd Cakas. ki def loolu. waaw Cakas la tudd mi ngi dëkk benn quartier bu ñuy wax festival. bon du quartier sax. mais dafa benn baar bu fa nekkoon. Mhm. baar bi mu tuddoon festival. mu ngi nekk entre Mbambara ak Cité Niax. donc baar bi moo yóbbaale ñu naan foofu festival ba mujj ñu woowee koñ bi festival. baar boobu nag moom càqas papa moo fa ubbi woon. yaa ngi donc nag ci environnement boobu moom la màggee. moom xale bu jigéen moom xale bu jigéen bi. ba à un moment donné nag baar ba dañ ko tëj ndax am benn doyen bu ñu fa reyoon. bañ fa reyee doyen bu ñu tëj baar bi nag ña fa nekkoon yenn jigéen yeeg yooyu ku ne tasaaroo jël si yoonu bopp ñii dem luyee ci. yenn ruq yi ay néeg ñuy dem dugg fii dugg fële moom tam mu jël yoonu boppam. moom cakkas mi moom cakkas. Mm-hmm. lii mu def de mu def waa ji cité la mm-hmm. def na ko benn borom boutique. boo xam mi ngi dëkk ci benn koñ bu ñu xumute. Thiès waaw. na ko benn nag moom ay turu quartier yu garaw xumute eh. xumute xaar mu napp sax. amul angal lawbe. angal lawbe. waaw foofu la Alioune Diop dëkk doomu njaw ma kodd bi. dégg nga ma ne angal lawbe la Alioune Diop dëkk. angal lawbe Ndiaye. Hmm. njaay <laughs> eh, Ndiaye Ndiaye Ndiaye laa dëkk nag. ah mais xam nga ay xumbute quartier xumbute. waaw xumbute waaw xumbute. mais foofu nam la yàlla baal bu fa dëj amee nu ñuy def. ay xumb xumb xam nga Ndiaye Ndiaye Ndiaye on est de Thiès waa na xumbute am na muusante muusante. daa moom xam naa ko. waaw musante xam naa ko. xam nga Mbambara. dégg naa ko Cité Lamy dégg naa ko. waaw kay waay. angle lawbe. angle lawbe nag ca kas dabagu fa. mais dem na Mbambara dem na si dara def na ko Mbambara benn sëriñu daara encore. moom cakkas moom cakkas ba dañ ko ñaanal intervention ay mag yi dëkk ci koñ bi ñoo ko ñaanal intervention. da lay ñëw daal fexe ba côtoyé la jiiñ la ne da nga yegg ci kawam. boo ñàkkee sens mu ne la da nga koo ëmbal. ma ngoog. waaye loolu lu mu ci jublu. ah xëy na da koo tàmm. dégg mën la njaay dafa am ci benn environnement bu mu màggee. xam naa dégg naa la mais ah, léegi léegi léegi gaa yaa ngi laaj ñu ne ndax waa ji baal na ko. waa baal na ko ndaxte man démb nit woo na ma ne ma gis naa ko. kon baax na Kalza maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye. da ngaa xëy da ngaa xëy fajaroo ci daral yi. ci daral yi waaw ci laa fanaan sax nag. nu xar yi tëdd. <laughs> xar yaa ngi ci réew mi bëri nañ ci réew mi de salaamaaleykum Paas. waaleykum salaam. xaw ma nag xaalis am na waaye xar moom am na. Hmm. waaw xar yaa ngi ci réew mi de Ndiaye. duggee Medina gii génn. nga xam ne xar yaa ngi fi de buum ñaata lay jël kan si buum. buum waaw buum buum boo xoolee sax ñu may la ko fi ne nii yokk na nag parce que buum cent franc la doon jël léegi téeméer. dimbale mu wutal mu buum kàll. boo téye xar téeméer boo ah, bu baax. boo téye bu mën a yeew ay tànki xar nii nga laxas ko dugal ci maal bi <laughs> mën ngaa yaak mën yaakaar. <laughs> Eh, kàll. waaw ah. démb ñun nii nag attaqué nañ fi Ndiaye nag. ah waaw. di Ndiaye di wax affaire dem tabaski jeeg yooyu noonu. ay coow débat la andi ci réew mi. waaw débat Ndiaye nag kaay ma wax benn affaire nag xam am na benn waay moo ma dem bu di kaas ma ne ko li njaay di wax waxul ko waxu boppam Ndiaye li mu wax ay nit ñoo ñoo ñu bëri dañ ko koo wax léegi nag Ndiaye. dama man dama ci def sama réflexion bopp fi Ndiaye di waxee man dama koy soog comprendre dem ci guddi ni ñu yàqee koor ni ñu yàqee koor yàq yàq suukaru koor. def ko def ko tendance. nga xam ne bu njëkkoon ay suukaru koor ñaari ñaari paquet defar rek. yaa ngi boole lu bokkul defar naa ko ma ñëw pare doo bàyyi ma daan pare. Ndiaye xam bu ñu ko ñaar paquet suukar la ñuy joxe weeru koor da nga dem jënd paquet suukar wala nga jënd ñett paquet suukar léegi kalse paquet suukar pañe dox daje ngay wut pour yóbbu ak ay parure or ak ay jees ne war wut benn bongomaan mu ànd ak yow diir la nga yóbbu suukaru koor sa wax ji daal ak Ndiaye xamul ma ci dégg hmm. cosaan ngeen fi bëgg a xaaral ma ñëw julli ji daal kër yaay fi Ndiaye di waxee Ndiaye yow kalse kër yaay di waxee dem fa julli ji daal cosaan la te dañ ko fa bàyyi rek d' accord Ndiaye ne waxul sa ci kër papa kër yaay man fi ma déggee man hmm. parce que am na benn femme bu mu wax dem ni moom li ko gën a naqa ci àddunaam mooy jóge fi dem di tabaski ji ca wujjam hmm. kër wujjam la mu fay dund ci ñaari fan tabaski moog yàlla rek ko xam ñaari fan garaawul yàggul yow ngay ñëw ñu lay xaaree teraanga di la xool bëtu teraanga te fekk ne yow sa jëkkër joxu la dara ñu jàpp ne jox na la lépp waaye da ngeen fàtte benn côté tamit benn côté tamit nag. waaw Paas taxawal defal ndànk. yéen da ngeen fàtte luñ ci jublu woon dajale. ñun ñoo yàq loolu nag. lan jubloon suukaru ko ba ñu yàq ko. yow xaw foo jaar ak ba mu convaincre la ci wax jooju. Hmm. waaye demal waaye man moom du ngeen ma convaincre. waaw léegi yaa daam lu ma dig léegi. du maa waxoon wax ji. waaw waxeet. waaw nañ déedéet waxee man du ma wax di waxeet. yàlla yàlla bindaguma ko de te yàlla ma ci yàlla suturaal parce que généralement su may wax. Mm-hmm. sama sama aqulaayi taala laa koy teg. tey laa ko gën a mën a wax jigéen ñi ñu bari ci ñoom ñi ngi ci fitna ndax dañuy jóge fu ñu sëy dem di tabaskee ji feneen booloo lañu ci juble woon rafetal la ñu juble woon mais yu bari léegi li muy yàq mu ëpp li muy defar bésu tabaski bésu feet la warta doon fitna ci kenn dañuy baaloonte ji àq mm-hmm. mais ku dem gàddu àq baa nga jëlee fa àq mais bu naree mel noonu kay nañ ko xoolaat ku nekk tabaski fi ngay sëy man kay li la wax. fi dëgg di kenn jiitu wuñ si ñun. wuy ma war a jënd ñu dem. Ndiaye <coughs> Thiès am na randu leen dégg nga randu leen. randu leen nord randu leen sud. xam naa eh, eh, eh, yow Ndiaye. Mm-hmm. amitiam mii. Mm-hmm. maa la koy wax démb. Mm-hmm. fondel la moon jëndi. fonde xam ni bële. dem na ba ci borom fonde bi bàyyi fu pot baa xaalis amitiam ba léegi ñu bisee bële passé ba tey la mu mercredi. ba fii amati am ñibbisee. ana porte fondé ba. waa këram dem nañ te borom fondé ba jël ko parce que fa la ko bàyyi ba mu dem. jot nañ koo jox fondé wala dañ pot ba rek lañ fa fekk. pot ba rek moom moo fa bàyyi pot ba xaalis ba dem. waa déet xam nga ñi ngi ciy ree waaye mbir la de. lu <laughs> doy waar laa lay wax. fa la bàyyi pot fondé bi dem. fan la lu Louga. waaw ñu déglu déglu. loolu fa amoon benn jaaxle boo xam ni moo tax mën woon naa la yónnee audio bi suñ benn doom depuis samedi bële ba tey te les dix jours am ci lu tudd quatorze ans quinze ans ba dafa teg xaalis ba ak pot bi yëpp ko seen waa kër jël ko gëj a gis ba fu ñu ko dégg nañ ko dem nañ fa fu ñu ko dégg daal moom dem nañ foo ko mën a gisee nga jël suñ numéro nga wooñu ami càmm Louga la dëkk Seras papam tudd ma dikk Thiam yaayam tudd Ndakal boobu ba léegi ñoo ngi koy wër wër nañ ba sonn wër nañ ba sonn ku si dimbali ñu jël jaaxle. ko yàlla nit. buñ ci xamee dara nañ ñu woo ci 77 te xam nga lu ma jaaxal léegi ci ñi di dem ñi di réer. waaw la plupart bu ñu réeree rek famille dañuy jaaxle parce que ñi ci ëpp waxuma ñëpp nag. Mhm. mais à bu ñu leen di gis dañuy fekk ñu ñàkk. ñu parce que démb dégg naa kenn ci dem di jëli ji bulletin de notam ca école ba ñu koy wër ñetti fan démb ñu fekk ci bâtiment bu ñu fa boo xam ne dañ ko ci ci biir réservoir. bàjj loolu mooy bàjj. bàjj bàjj la tudd. waaw te apparemment li ma lee man ci journaux yi te ci li yoon wax mooy dañ ko faat te jàpp nañ présumé bi. Hmm, yooyu yëpp wax nañ moo ko faat. moo tax fi mu ne ku fi sa doom réer. doo nekk ci jàll yi teel a yëglu. suba sax naa teel a indil benn koo xamante ne tam ab xale bu ndaw la moo tam ñu fekk buntu këram ne ko jas yóbbu depuis avril ba tey dëkk bi itam li fi ne kenn du ko wax. yàlla na feeñ. lañ teg charia ku fi rey nit ñu rey la charia. Ndiaye. Mhm. kii tamit Alsaan Gueye mii. Mhm. ab kii la. Euh, mool. mool. Mhm. bi mu demee Guinée léegi trois ans. seen waa kër gisuñu ko. dégg fuñ fan la ñuy dem tamit Ndiaye ñii réer ak ñii dem xam nga ñaar la. <laughs> xale yii dañuy réer ñii dañuy jékki-jékki dem. dem xam nga xam nga Ami Thiam daa réer. non dañ koo gisul dañ koo gisul. waaw mais Assane Gueye mii. moo dem moom day day mool la buy dem ay Joal ak ay Saint-Louis ak yooyu dem ba affaire yu dëgër moo benn copain ñu ànd dem Guinée di fa liggéey xam seen mbokk lu ci am. Hmm. trois ans après. Hmm. ñu ñëw ne Assane rey nañ ko. ngi ku ko rey dañ koo sos si daf dóor ko ba mu dee ana koor ba gisuñu koor déggatuñu alsaan trois ans ba tey jii xamuñu lu xew. ah il ñu da doon dem ci géej gi da doon dem maare da doon dem ndar di dem jowaalo léegi nag bi mu mujjee campagne ndar gaal gi ñu nekkoon naruñu leen lu baax léegi nag moroomam yi mu àndaloon naka nañ dem tabaski ji comme lii rek lañ jot am nañ dem yóbbu lu ñu am mu ne moom li mu yor dafa ndaw mënula ñëw daal xamul nu muy def léegi am beneen moroomam nag nañ dem juwaalu buñ demee juwaalu ñuy mbaal di teer buñ di teer ba gis gaal gu ñu yóbbu ay Guinée ñu dem nii si la daal di demee noonu dem juwaalo di mbaal di teer di mbaal di teer ba gis benn gaal waxax gaal gi léegi gaal gi ne leen bu ngeen ma joxee ku nekk deux cent mille ma léegi si lañ yéeg gaal gi fay Jamaïque deux cent mille ñoom ñaar ñëpp ku nekk deux cent mille léegi si lañ dem Guinée bi ñu demee Guinée noonu nee na ki mu àndaloon mu dem mu xool nee bi mu xoolee mu ne ko ah booy man de fii li ma fi gis doyu ma te man sama yaay man rek la am su doom ju góor man daal damay retourné ñibbi nee na mu ne man de du ma retourné fii laay des mais ñi ñu fa fekkoon noonu ñooñu nee na dañ ne leen ñu ne fii dañ fee jënd bàmmeel léegi moom sama sët bi mu ne man de man koon fii laay toog léegi moom mu bàyyi ko fa ñëw ñibbi se ndar campagne fa ba campagne yi mu ñibbisi léegi nag moom diiran bi mu demee ak léegi ñun gisuñu ko ñetti at gisuñu biñ ko gëjee gis am na ñetti at léegi nag ñi campagne ji woon ren ñoom ñoo ñoo indi rumeur bi ñu ne dañoo dégg ne alsaan dañ kaa rey te ñun xamuñu ñu ko rey gisuñu ko gisuñu daara te xamuñu fan la fan la nekkoon si Gine mu metti lool si suñu xol yi metti na lool waa moom mu ngi tudd alsaan sant Gueye ki mu àndaloon moom biñ ko oowee dane bi ñu àndee dem ba foofu la gis foofu neexul mu ne ko man damay ñibbi que man fii des léegi nag ñi demoon campagne ji nii ñi mujjoon dem campagne yi ñii ren ji ñoom ñoo indi xibaar bi ñoom ñoo indi xibaar bi ñoom ñoo ne daal alsaan daal ñu bëri ñoo ka ñoo ko sot sotoo rey ka waa léegi buñ ko sot sotoo rey ka ñun gisuñu koor suñu dara te moom bi biñ mujjee gisee moom man na ñetti at bi mu gëjee fii ñi man na ñetti at si la ñëw na yaayam naka ñaanal man ma ñaanal ka man maamam mu dem mais moom dafa tàmm bu daa dem day jël numéro am envoyé ka yaayam dem déggu ko téléphone déggul si moom dara déggul si moom dara lu dul ku mu laaj rek ñu ne ko Alsaan daal penku bi la aw waaw penku bi la aw xamuñu si moom dara ba ñu ñu jékki-jékkee rek sama benn rakka sama benn doom buy ñëw fële sama kër maam mu ñëw na ma ndax gëñ ngeen dégg Alsaan ma ne ko waa ñun de gëñ nañ dégg Alsaan mu ne déggu leen si moom dara ñu ne ko ñun dégguñu si moom dara de si laa ne waa lan la dafa am lu xew mu ne ma Alsaan dafa am benn booy bu jógee campagne mu ne dafa dégg ne dañ ka rey ma waa ma ne ko loolu rey rey nii rek mu na ma waa kooku daal loolu la wax léegi kooku bi ñu xëyee dem seet ka tam gisuñu ka waa gisuñu ka ki mu àndaloon tam ñu ko téléphone mu ne moom gëj na dégganteeg moom la Ndian Ndiaye. Hmm, metti na de. trop metti na de nit ñi dem nañuy bàyyi xel ñi bàyyi ginnaaw. Ah, surtout. nit ku jug ci kër nga jóge boo joxewul benn nouvelle say mbokk xamuñu ci loo nekk. Hmm. teg nga leen fitna. Mhm. nit même boo demee di wuti mu dëgër. Mhm. del yëglu di wax na li ak lii ma tëye. Mhm. dalal xelu njaboot gi. dafay baax dafay baax ñu lay ñaanal sax da ciy baax. fu ñu jëm. Ndiaye. ndaw si. moom conséquence su conséquence wu viol la fu ñu ko yóbbu xam nga dina xaj wala. yaakaaruma ko. Hmm? yaakaaruma ko ci xaj. kon ñu baax bu suba. waaw parce que parce que moom aussi tamit daa benn cousin boo xam du ko mosoon violé. ba mu dem ba wut certificat médical ak nëpp nëppal ba nag ak instant bii nii li mu ciy waaw njaay kooku dinañ ci ñëw. déet Ablaye. mu ne baax na. Ah, ñu dem ci viol. waaw. waaw ayca kon. ñu ko wax ayca. boobu j'étais élève maa ngi def seconde ma nekk sama kër bàjjan bi ma nekkee foofu sama bàjjan dafa amoon benn doomam bu góor bu nekkaloon si kër kooku sama cousin la man ak moom jàmm la ñu sekkoon avant ka fooyee léegi bi ma affaire bi di arrivé dama dem ba wàcc maa ngi ay 15 heures ma ngi si kër bi naaj bi tàng et tout ça bi ma ñëwee fekk ma fi sama bàjjan ma laajte ko ana waa kër gi mu ne ma sama bàjjan ne fi dafa dem Touba te vi que man ak moom ñoo nekkoon ci kër gi ak sama sama ak sama yaayu bàjjen ñoom ñoo nekkoon si kër gi ma laaj ko sama mu ne ma dafa génn moom tamit man xam moom rek ñoo nekk si kër gi parce que kër gi souvent da doon wéet des fois nga wàcc doo fekk kenn même moom sax des nga wàcc doo fekk da ngay ñëw si biir par la suite la ne ma la suite si laa ko naanee ma naan ko nelaw moom mu ñëw àgg sama kaw léegi bi mu àggee sama kaw bi ma nelawee ma yeewu gis na kii àgg na sama na kaw mais perte ma woon sama virginité violé na ma mais ka perte ma sama virginité ci laa ma tiit ma woo sama benn xarit sama xarit boobu ma nekk si ñëw léegi-léegi la ñëwee jël ma yóbbu ma hôpital nekk moom ñu ànd dem foofu biñ demee ñu fekk fi médecin bi bi xool ma dina ma certificat médical et tout ça ne ma dangay porter plainte si laa oowee sama papa téléphone expliqué ko waxu lépp sama papa ñëw si guddi ñëw léegi sama papa bi mu ñëwee woo sama bàjjan moom tamit mu jógee fi mu nekkoon ñu ñëw bi mu ñëwee sama bàjjan au lieu que mu ànd ne doomam dafa tooñ mais début bi bi ko sama papa wooyu da ko xamal ne ko man ak doomam dañoo amoon ay relation alors que man moom mosuñu sekk dara jaamu rek lañ ma sa sekk ak salaam ñu nekkee ndoowee nii si kër gi kaf foore ay cousin cousine mosuñu sekk dara te sama bàjjan xam na loolu man doxuma woon ci yooyu léegi bi mu ko waxee loolu sama papa après sama papa commencé di gëm yaakaar ne man ak moom dañu sekk dara vu que ay famille lañ ñu ne voilà wax bi bu mu jëm kaw nañ ko bàyyi mu sedd bu kenn wax naa gas lépp ma suul ko bu ma ko wax naa teg sama certificat de médical bu ma porté plainte bu ma def dara naa toog ma toog gàdde loolu ma am douleur bu métti sama àdduna à chaque fois su ma toogee damay am lu ma nàkkari ma toog fa premier jour sama papa ñibbi si guddi bi bi loolu amee bi sama papa ñibbi bàyyiwaan ma si kër gi si guddi bi ma toog ba guddi aw ma loolu envie rey ma xam ne kii su ma nekkee ak moom ci kër gi dama koy raaj après si laa woowee sama papa ma ne ko man fii su ma fi naree toog ma bàyyi jàng bañeeti jàng di jàkkaarloog moom di imaginer ne def na ma lii ma continuer si même bi mënuma ko si laa xëy di sama bagage jël yëpp dem suñu kër ñibbiwaat bi ma demee sama papa xam ne man kafuma fi la ma jëlee indiwaat ma yóbbu ma sama benn sœur buy sëy foofu fi laa nekk continuer sama jàng fi laa àggalee sama année seconde noonu xalaa defee première ba terminale ma amee bac mais moment yooyu noonu yëpp maa ngi dund benn douleur boo xam ne je me à chaque fois su ma toogee damay am lu ma naqari damay am benn haine envers moom su ma ko gisee ray ko rek laay bëgg sama àdduna ba ni may waxee yow ni tey maax moom gisante nañ ray ko rek laa bëggoon ray ko je te jure may dund loolu te mënuma ko wax kenn ma préféré garder ko parce que lan sama kilifa bëgguñu mu jëm kaw ma dégg seen digal topp loolu lu ma bëggul def parce que kooku en bi ma am ci moom maa yàlla rek ñoo ko xam su ma sañoon man ak moom dañu bokk suuf si te à chaque fois dama koy gis moo tax ma ne naa wax ba xam li may wax nii dina mën a am lu mu dindi ci man parce que souvent on boo amee ay problème il faut nga wax ko boo ko waxulee mën na la pousser nga def la bëggul def te sinon dinaa def lu ma bëggul def may bu nekkoon te ni instant bii la ma lii dal. voilà sori wu ko de. six ans la si Ablaye Diop nee na deux mois jërëjëf Ablaye xam nga congé la nekk mais bëgg mu bëgg. RFM moo tax heure bu xëyee ñëw. du du deux mois yi nii du lool de. day calculer diggante korité ak tabaski. laay chargé bëri ku ñu war a jox xar a ngi nii dañ ko jox xar yu bari Ablaye Diop waxal léegi yeggale ñu déglu ko. man mhm. la Alioune Diallo papay Omar Diallo. waaw xale bi fii la doon foo si buntu kër gi. xale bi mënul réer fi xale bi fii koñ bi fii yëpp ñëpp ko xam fii la doon foosi sama bundu kër fii du dem fenn du génn du dem fenn fii la doon foosi si weeru koor gi le 17 avril si biir weeru koor bi ay vers cinq heures lañ ko jël fii boobu léegi amul fu ñu dugul amul fu ñu wërul mais bu ñu demee nag ba fanee passé dañoo enquête damaa woo xale yi leen parce que boobu ba tey booy bu mu réer bu mu demee ba léegi gisuma woon ku mu enquête xale yi mu fool gisatuma si woon kenn woo xale yi laaj leen loolu moo tax ma ne xale bi dañ ko enlevé xale bi dañ ko bu ma ko laajee xale yi moo woo xale yi laaj leen ñu ne ma carrément kii Omar benn tonto moo ko jël fii moo ne ko kaay man tonto Omar laa tudd moo ko jëlee yóbbu loolu daal lañ jot am ci information yi mais def nañ déclaration police ak gendarmerie def nañ ko. ñun daal fu mu ne nii doobu ba léegi presque trois mois te njàkkaar lañ nekk danga bëggoon daal nga dimbale ñu ngir yàlla yaayam fu mu ne nii dafa tollu diggante dafa sonn billaahi yaayam dafa sonn man mu namuñ mais yaayam fu mu toll nii billaahi dafa sonn si diggante la toll depuis weeru koor ba léegi ñu ñu ngi souffrir yaayam lu metti lay dund dimbale ñu yàlla affaire yi ngeen jàppale ñu rek ñu ñu si. fu mu ne ñun fu nekk fu nekk lañ dem fu nekk mu ngi tudd Omar Diallo mu ngi am six la am mu ngi dëkk Kër Massar zone de recasement fii lañ dëkk fii la juddoo fii la yaroo mais mënu fee mun na xam na sama numéro téléphone. xalaas. yaa kii muumi nga six ans la. ndeysaan. koor gi ba tey yaayam papa ji wër na ma sonn. Hmm. Ah, metti du nekk ci ci ci ci ci euh, jaaxle nga mel ne ku koy yedd mais nañu gën a yokk surveillance bi ci xale yi. Mm-hmm. nañu gën a yokk surveillance bi ci xale yi. Mm-hmm. c' est comme biñ ma waxee ne ma bébé Aïda dañu ko jël ñu ne dix huit mois la am. Mm-hmm. négligence. man ne leen mbon am na ci de parce que ki jël fekk doomu jàmbur moom doomu jàmbur boo ko fekkoon ci rond point Sandaga mu tegee sax waroo ko laal. Mhm. na xale bi 18 ans nu mu mën a muccee ci ginnaaw ndeyamo. Mhm. ba nit di ko 18 mois plus ba nit di ko gàdd du yóbbu. nañu gën a kon càggante am na ci. bu rëy sax kay. sant yàlla nag ba mu feeñee. Mhm. j'espère que dootu leen dalaat. nañu téye suñu doom yi. càggante la. nañu téye xale xamulul boppam dara. nañu téye suñu doom yi. déedéet dëgg la de. ñu fu ñu jëm. natt wala ñu dem fële taw si bii di waaj ñëw Ndiaye gars natt yow nattu clando maani natt ba war a tegg dem jullu ji. non attends clando maani mooy ñu yor clando. waaw noo doon natt. waaw d' accord. waaj a fuuf natt bi. ki yor natt ñaata la. un million et quelque daal. <laughs> léegi la la ca des la jox quatre cent mille séddale leen ku nekk am vingt cinq léegi mu ne leneen fu mu dugg. waa ji moo daaw tey soo ma tegal. mu ne nga teg élément. <laughs> ragalul de. du ragal. du ragal de. tegal dama ko woo expliqué ko mun ma waaw léegi nag mën na koo dañ doon wut sa version mun ma tegal. mais jox na leen vingt cinq mille ku ne. waa ji wax na jox na leen vingt cinq mille. da leen avance. ñu déglu. daa am ku ñu dénkoon si natt post carré depuis daaw ba ren natt bi mu ngi war a nekk ci maanaam deux millions yu manqué cent mille daal natt bi nag wax dëgg yàlla ay kilifa ak ay xale yi nga xam ne nii bañ takkee jabar daaw la ak mag ñoo xam ne nii wala wax dëgg yàlla si natt bi leen yaakaaroon xaru si lu ne même boo joxee téer bi sax amagoo loo ko fayee même boo yaakaaree xar nee nga xar temps ah, te amagoo loo ko nga yaakaar ko si natt bi ni ki daal lañ tas natt bi ki ñu ko xam ne moom lañ dénkoon natt bi muy góor caaro yi mu lekk xaalis bi un million cinq cent daal la lekk mu des quatre cent mille quatre cent mille la xaw ma kenn xamul oto ko jënde sabaru kalandoo kenn xamul lu mu laajte nan mais nee na xam ne ni métti na ba si kanamu yàlla man li may wax yow nii sax mënuma sax wax bu baax ndax naqaru xol ma dagul cinq mois ba ma takkee soxna ak léegi te yaakaaroon naa si natt bi loo xamante ni dinaa si mën a defal loo xamante ni su ma tabaski jee dinaa ñemee dem këram mais nii may waxe yow walaay naa si du ma tabaski ji ndakaaru njaay laay tabaski ren te suma ma moom moo ko waral te ñeneen ñeneen ay nit ñu ngi si garage bi ñu dem julli ji ndax lu ko waral natt boobu mu lekk góor a bopp fas caa nii da la demee yow tey waa ji nag nee ren du tabaski ji mais ma natt ci ay jigéen laa ko gënoon a miin de Mohamed wala waaw ñoo ko doon ñoo ko doon ñoo ko doon ñoo ko doon en lañ ko gën a xamee mm-hmm. ci lañ ko gën a xamee mais xam nga euh, boo nekkee ci benn barab comme garage yi. Mhm. ngeen gis ne par exemple am na benn projet bu ngeen mën a teg. Mhm. ah da ngeen koy teg problème bi kay mooy ndax ñi ngeen koy séqal yéen a yéen a yéen a yam. Mhm. moo tax fi ne réew mi xaalis da leen a jaral lu nekk. dëgg la Kals. ñaar yii seetlu naa ko góor ñaa ngi ñaan ndax coono àdduna. wallaahi nit ñi gëmatuñu yàlla ndax alalu àdduna. est-ce que li nga wax nii. moo ne góor yaa ngi ñaan. ndax coono àdduna. Mm-hmm. nit ñi gëmatuñu yàlla ndax alalu àdduna. est-ce que dañoo nañu nañu delloo si suñu xel yi. parce que alal day. nañu si suñu xel yi. Mm-hmm. bëgg alal day wàññi ngëm-ngëm. Hmm? dëgg la de. dëgg la dëgg la la. ngeen ko maye ah, mooy natt yi. de benn natt laa bokkoon dootu ñaar natt ba léegi chaque jour ma natt musuma teggi. ba tey jii leen xam ne ko yoroon natt bi. <laughs> mais xam na natt en daal benn maire bu nekk ngaabu la daal. natt li ci gën a neex mooy nga teggi bàyyi. te kon da ngay mujjee teggi xanaa. Ah, boo teggee bàyyi. fu ñu waa ji day hmm. moom it daf ne lu ko jaaxal ci kaaw ñuy wéer. Hmm. comme bu am vingt ans mag hmm. moom jàpp na ne xam na lu tax ndax am lu mu dund diggante Dakar ak Mbour. moom waa ji waaw. lu mu dund lu mel na. genre jël oto. Uh-huh. transport. ñu drogué ko ci oto bi. Hmm? ñu drogué ko ci oto bi ba mu ne tëll. oto dugg lañ ko drogué. gaa yi dugg moom ci mbooy bi. Eh. góor la waaw. mais système ba mu def ba gaa yi wàccee kook mandi mandi teefam ak yooyu noonu. Hmm. expliqué na lépp. mais comment ni nu war a mel Kalz. ah xanaa di tërës tërës rek jaxay jaaya jaaxi. da ngay déglu son Maodo bi di nga xam. mais non ma xëy na mandi dafa ñaari xeet. am na ñu ñuy doroge nga màndi tàggale ko sa sago ak màndi bi nga xam ne xëy na yaa koy sabablul sa bopp mooy gis sàngara naan ko mbaa nga loogi nga jam mbaa nga doroge mais am na mandi yoo xamante ne defal la ñaaraam de waaw doon daal da ngay tàggoog sa sago mais xam nga bi nga sababluwul sa bopp ñu jël maanaam dara dugalal la ko ci verre hmm. nga naan ko mbaa ñu piqûre la ko xam nga loolu pour nga tàqali ko du sa tayeef voilà boobu sax su ma juumul ko miinu ma trop ci mbiru lislaam ak diine yooyu mais su ma juumul boobu moom toppewuñ la ci dara ndax tayoo ko. la ko say toppe am ah, laa lay wax nag moo tax man la dafa am ñaar ki ko tay di ko def ak ki nga xam ne tayu ko dañ ko ko def. Hmm. kii essayé nag. essayé daa bëgg a xam nu mu mel ñu def ñu hmm, dëkk bi am na ay gars yu doy waar yu fi nekk man lii ma lay wax nii man maa ko dund fii ci sédiment bi mooy péage bi man maa dugg si benn oto pour dem Mbour oto bi sax boo xoolee gars yi dañ lay ootal dafa mel ku ñu ootal ndax dugg na ci affaire bi lu yàgg ci oto bi ci ci péage bi lu yàgg ma daw topp si parce que xam nga ñeneen ñi dañuy tayal mais man dong keroog man maa dem dugg si oto bi ñoom ñaar la ñu ci kanam maa ngi si ginnaaw man maa fay péage bi sax keroog maa joxe deux mille foofu may dem Mbour léegi ñoom bi ñëwee ba aéroport ba ba ci kii bi aéroport bi maanaam ñu jàpp am aéroport am na ñaari fois am na fois boo xamante moo jëm ci rond bi jëm ci euh, côté piste bi am na ci boo xamante ni beneen tali boo ci biir àll bi la jëm dafa dévié ci biir la jëm xaw ma pour daan léegi mais avant boobu waa ji mi ngi ko laaj mu jox ko ko après mu ubbi benn termouche mooy termouche ndaw yooyu mu xel li loolu ñu comme genre was rek xam nga fekkee dañoo civilisé doonoon ko sax foogee ay nit ñu civilisé sax léegi ci la xellee ci benn kaas agité bu ndaw chauffeur bi moo ma jox ni ma eh, jàmbaar am waay ma daal di jël sama chance sax xaw naa dute mais man daa ma ne ñoo ah man daa affaire góor la te tamit yaakaar naa ne ñi ñi daal yaakaaruma ne ay def ko du ñaawteef lañ ci laa naan affaire même pas cinq minutes sama yax yi commencé dépiéché wu man ma mel ni ko addunaam tukki mënatuma dara dara dara mais nag naa ngi takk samay noir fumé ba pare oto bi xam nga ci am na ay poignée ci kaw fi ngay jàppandu maa ngi jàppandu foofu chauffeur bi bu dawalee tuuti rek xool rek di ko xool nelaw nag mais sama bët yi ngi xef ñu ngi dam ko xool mais ma forcé ko rek defuma benn réaction nag ma toog lu ma ne parce que xam naa ne dañ ma xaw bàyyi xel que ni man li tax ma naan affaire bi te daanu ma waaw ñu ngay sous-estimer quoi di xool ndax man nii man dinaa wala man lu ma te instant boobu moom yàlla xam na ne bu ñu ubboon buntu bi ma daan dem naa ba instant boo xamante ni dama jékki-jékki daal ni na waxuma leen ni damaa tiit waxuma dara ñemewuñ ma attaqué na ñu taxaw presque ay vingt minutes trente minutes ñu def ko ci ci ci ci ci tali boobu noonu ci biir après lañ jékki-jékki génn wër rond-point aéroport bi door dem national nag ci laa santaat sama borom daal di féex sama xel mi si mais teewul ba te affaire yi daf maa dal ñu ñëw croisement Saly ci xam fi police bi taxaw ci station bi noonu man bi may wàcc ñoom seen porte pour te dire ñoom ñoo ko tëjal seen bopp xaaral sax ma tëjal leen porte bi dañu yaakaar ni dama yendoo nelaw su ma buddi xonk cur ma wa sama waajo mu ne ma yow saa ci te man li ma jaaxal man ay ay jamono dama daan dégg ñu naan diw dafa réer diw dafa réer am na ay ay ay paa yoo ay wala ay ay vingt ans trent ans quarante ans man maanaam mag nan la mën a réer mais lii bi ma arrivé laa xam ni képp ku réerati mag mu réerati wallaahi dematoo sa coobare bopp dafa am lu tax ñu yóbbu la te ñii ñu ngi ci dëkk bi te war nañ ci bàyyi xel ñii ñi ngi ci dëkk bi ñi ngi sàcc nit ñi te képp ku duggati ci oto ñu jox la lekk mbaa naan lu mu mën a doon parfum sax bu ko laal lu ne parce que gars yi dañoo doy waar mën nañu laa jël pompe la wala nga lekk wala nga naan nelaw ko mën nañ ma def man sutural nelawuma dama dëgërlu rek nag par takk sama fit waxuma leen benn yoon fu ngeen ma jëmee néew ma leen fu ngeen ma jëmee néew ma leen fi ngeen di jaar loolu la néew ma leen def dama ne këcc di leen xool rek comme soldat bu taxaw loolu léegi nag loolu moo tax ñemewuñ ma attaqué waaw mais safóor bi moom xàmmee naa ko mais keneen ki ci des xàmmee ma ko ndax dafa takk masque safóor bi après bi ñu leeree ni cool na ba cool ci lay door a dindi noir fumé door takk ay verre bu yaa dégg da njaay bu baax kay. lii bu leer na. te yàlla. mais li mu mujjee daaneel nag lu jar a bàyyi xel la. Mhm. maanaam euh, boo duggee ci auto transport en commun wala nga nekk ci ay nit ñoo xam ne xamoo leen. Mhm. lañ lay jox nga di ko lekk dee ko seet parce que biir amul couvert te nit ñi dañoo saay-saay. Mhm. dëgg la. waaw oui dafa am benn xewit bu am. Ah. ma bëgg ma bëgg gaa yi bàyyi ci xel. mooy. képp ku ñu woo di la may am xar. Hmm. dama jëlili ko sa bopp bu ko yónnee. ndax dama lay woo ne la may naa la xar demal ci diw sàngam mu jox la ko. waaw nga tàyyeel woo kader ne ko dama jëlali ma ko kader day jëm jël xar mi bu magee. mu dem mu da koy <laughs> wecc <laughs> day jaar Medina. am na ku ñu ko def koo xamante ne ji fi mu ne moo waa ji police dañ mujj. ña ngay ja teg tabaski léegi mu jot. ah ku ñu may xar ki ko may. demal jëli ji ko. yéene ak yitte jim ci am ba def ko. waaw dem am ci yitte jooju ngeen ko sa bopp. Saña ñu ngi koy nuyu bu baax. <laughs> non non non man man. jaay dañu ma sama xar jox ma xaru tuuñaa daaw. jaay xar ma jox ko. xaru tuuf tuuf lañ ma jox. allo président.